la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 liggéey liggéeyloo nanu liggéeyloo nanu liggéeyal nanu ko liggéeyal nan ko ñëw na xool si liggéey bi ñëw na xool si liggéey bi nan ko may fu mu jaar nan ko may fu mu jaar yëngu bépp na yëngu bépp na de Baye Fall jërëgeen jëf nee jërëgeen jëf kaddu yooyu rek lañ ci doon kaddu yooyu rek la doon jottali moom Serigne Saliou Fall ndax li tax ma di ko wax nag ndax nee na li tax mu di ko wax bi sëriñ bi ñëw daal. bi sëriñ bi ñëw daal. gis naa lool moom xaw na maa jaaxal. ah gis na lool xam na ni xaw na koo jaaxal ba feeñ ca wax ji. te xaw na maa tiitloo. loo it xaw na koo tiitloo nag. bu sëriñ bi deetee ñëw. nee bu sëriñ bi deetee ñëw. boof leen. nan boof. ah loolu de moo daan am. nee loolu daan am de. ci liñ fi jot a fekkee. ci liñ fi jot a fekkee ñoom. daan ko gis. daan ko gis. bu kilifa daan ñëw. bu kilifa daan ñëw. ñëppay sukk. ñëppay sukk. kenn du yëngu. kenn du yëngu. ba mu jaar ci seen biir ba jàll. ba mu jaar ci seen biir ba jàll. kenn du ko xalaat nuyu. kenn du ko xalaat nuyu. wala nga yëkkati sa kàddu. wala nga yëkkati sa kàddu. waaye yëngu bii ñu fi yëngu tey jii. waaye yëngu bii fi yëngu tey jii. doy na waar lool. nee doy na waar lool. ñu ngi sant nag ñëpp. nee ñu ngi sant na ñëpp. te may sëriñ bi rek. te ñuy may sëriñ bi rek. muy gis liggéey bi. muy gis liggéey bi. ak dal akuk ak dal akuk mooy mën a tax mu ñemee dugg ci suñ biir. mooy mën a tax sëriñ bi ñemee dugg ci suñ biir. waaye lii ñu doon def léegi kat. waaye lii ñu doon def léegi. suñ ko bawul kat. suñ ko bawul dey. daañu ñu xañ sëriñ bi ci mu gis sunu liggéey bi. dinañ xañ sëriñ bi ci mu gis sunu liggéey bi. jërë ngeen jëf. nee jërë jëf. jërë ngeen jëf. jëf. sëriñ bi gis na liggéey bi. sëriñ bi gis na liggéey bi. waaye manoon na. waaye mënoon na. jëwriñam bi mu daan yebal. jëwriñam ji mu daan yebal. mën a dox ba tiim ko. mën a dox dem ba tiim liggéey bi. waaye fi mu ne mënu ko. waaye fi ne mënu ko. ndax bu jógee. ndax bu jógee. ma jóg mu jóg. sëriñ mii jóg. sëriñ Mbacke Fall mii jóg. ñëpp jóg ñëpp dañu bëgg a jóg. te kenn ku ci ci ñoom. te kenn ku nekk ci ñoom. am na lu ñu la def loo. am nga lu lay def loo. moom mi itam. moom mi itam. dafa am lu koy def loo. moom Serigne Cheikh Fall mii dafa am lu koy def loo. kon koy seeti. kon buy seeti liggéey bi. may leen ko mu dem may leen ko mu dem xool liggéey bi. ndax moo moom loolu. ndax moo nee na moo moom loolu. yéen la ngeen moom. yéen li ngeen moom. yéen a nga ca. yéen a wax leer na de. dinañ ko jëfe de. jeex na dinañ ko jëfe. dinañ ko jëfe sëñ mi dina jug dem xool ko. waaw bismillah sëriñ bi. waaw am ko yéen maa ngi dégg. waaw. ñu baal ma ñu maa ngi dégg ko maa ngi dégg maa ngi dégg. waaw. waaye moom moom si laaj. ma am ko sant bu baax. am mhm. ko gërëm baax. sëriñ bi itam li li mu def rek. Mhm. loo wax. Mhm. sama xol kenn ci biir. ndax ndax ndax loolu lu tax lu wax. waaw waxoon nga ko waxee wax nga rafet. wax nañu ko jëwee. li li li li wax. asalaamaaleykum. wa rahmatulahi wa barakaatuhu. ñu jottali ay kàddu yu bàyyikoo ci sëriñam Amdi Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëm ci jëwriñam jii di sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng xanaa mu jàllale ko rek ci mboolem njabootuk Cheikh Fall gi nga xam ne ñoo teew fii di ànd ak sëriñ bi liggéey bi sëriñ bi nee na teewlu na kàddu yi yépp nee na kàddu yi sëriñ Saliou Fatsaw yi nee na teewlu na ko bu baax te nee na ni ko sëriñ saali waxe noonu rek la nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ci noonu mu ko waxee te xam ne li mu wax lépp lu wér la dëgg la nee na teewlu naat kàddu yi sëriñ Cheikh Ngunda mu ne kàddu yooyu de mënutoon a ñàkk mënu ko ñàkk dégg tey jii ndax nun ñëpp maase nañ xam ni Serigne Cheikh li mu wax lépp lu wér la ndax nun taalibe yi dañu koy dund bu wér wér waaye nee na Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng nee na mi ngi lay jottali ay cantam di ko feddali bu baax ci sa jëmm ji ak njabootu Cheikh Rafal gi nga àndal yëpp ndigal lii nga xam ne jaar na si yow jàll si murit yi teew si kanamu sëriñ bi sëñ bi nee na bëgg na si murit yëpp nee na kenn ku si ne noonu ko sëriñ mu saa waxee ab taxawaayam ràññiku na lool ci liggéey bii nga xam ne moom la ko sëriñ Mountakha di liggéeyloo muy ndogu yii nuy togg ndax kenn ku ne ñëw nga fi moom waxtu wu ne di jaayanteek moom ak di fedd li ak di yeesal sag jaayante ak moom kenn ku ne la nga am lépp indi nga ko jox ko sëriñ bi ngir mu defal la ko si liggéeyub sëñ tubaab bii nee na mi ngi sant taalibe yi nee na mi ngi sant mbokk yi nee mi ngi sant ak njabootuk boppam muy rakki boppam yi nga xam ne ni mu ko waxee rek danoo bàyyi seenu njureel ak seenu cër fële jënde ko ak taalibe di déglu ndigal te fas yéene koo jëfe te sëriñ bi mosu leen a dégg si dara lu mu leen di tere wala lu mu leen di aaye sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne bëgg na si njaboot gi yëpp bëgg na si taalibe yi taxawaay bii nga xam ne am ngeen ko si bis bii wala sa njalbeen nga ba léegi dara ump ko si lenn lu si ne ñu ngi ko koy gaaral di ko ko wax di ko ko nettali mu di ko xam di ko jàpp bu wér-wér lenn lu ne nag lu si waay joxe nag agsi na fi moom loole mu ngi koy seere lu waay joxe rek mu jëm si liggéey bi sëriñ bi nee na agsi na fi moom te jot na si mi ngi leen di sant di leen ñaanal sama borom kattanal leen te wéral leen te yokk leen ay xéewal ba nu ngeen bëgg a jekkoo liggéey Cheikh Rafal bi ngeen mane ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah waaw lépp bagage yaa ngi nii de bool yaa ngi nii njaarim jaa ngi nii Tuubaa jaa ngi nii loo rek murid yi ko findi te jaar ko ci yéen addi Cheikh Fall lañ ko def waaye kàddu yi nga ñëw Fall dugguloon lool de yaakaar naa boo lëggee dina wuute te fi ñu koy xamee mooy bu sëriñ bi jógee bay fatu ñëpp dañuy tëdd bu sëriñ bi jógee bay fatu ku yëngu seet foo tëdd ñëpp bay tëdd dootuñu taxaw duub nañ ko dootul am nañ ñu jéggal ngir ñëpp di Cheikh Fall ak bëgg rek la waaye du ab xam dootul am. su amatul nee na bu amatul jéggal na nu bu amee nag baalu ñu nu jéggal jéggal nañu mburu maa nga ne di dugg lépp ngi ñëw lii moo jëm Touba lii moo jëm Njaarim nee Njaarim liggéey bi day def toujours dañ koy def ñaar benn dañ koy def ñaar benn Touba ñaar Njaarim benn ngir lañ koy séddalee ca Touba. ngir lañ koy séddalee ca Touba. dafay gën a yaatu. bopp di gën a yaatu ci njëriñ. ndax mboolem njabootu liggéey bii kenn ku nekk dañuy fexe ba liggéey bi egsi ci yow. kër gu dugg rek. la ko dalee ci kër Serigne Modou Sa Mbacké ba mu jeex. góor ak jigéen. góor ak jigéen. da kenn ku nekk da am. ba ni mu koy egg ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada noonu lañ ko defee faal góor ak jigéen ku seera faal yéen ne ko dabul góor leer fa yéen ne ko dabul jigéen ba kër sëñ Tuubaa daj kon sëñ am di faal moo du mel ni mu yaa dellu ñaan rek nga gën koo jekku de kon xam naa Serigne Cheikh si Saalum nee na si Cheikh Ndiaye mel gis na ko dégg ngeen kàddu yi dem gi rek a ci nag bu bu ko mën a daal fi ne day day tëdd dina am yóbbu bool yi buñ ko mënul nag ku accéléré wala nga corné li nga waxoon fi tebbi ko toog leen ba ñii taxaw wax ni nan ko defe ñii ñu defe ko noonu loolu yow mën a gaañi na tibb jox murid yi sëñ Cheikh mu ne nee na ñaan wute tibbal jox murid yi troisième coupé nga aj baax bi ñaan wu tibbal jox ñu yaa ko moom tibbal jox ñu amin na tibb jox ñu yàng leen lu bari léppay fees ci loolu Cheikh Ibra min faat jaga min raayo leen toog leen rek leen waxoon de toog leen la la la la la la la la la